Moko Sénégal mangi lendi nuyu kenn ku ak santam di xamal ni waxtu bi may élection président de la république ñu jàpp ko ci ñaar fukki fan ak février ci at ñu nekk fan yi

dafa indi lu bari lu mu indi ci réew mi ak ay jafe-jafe ci wàllu élection bi ndax indi na xel ñaar wala boo xel mu tey selon ñi nga xam ne dañu jàpp ne nañu saytoo seeni mbir jaarul ci yoon ginnaaw loolu assemblée nationale bi jàpp ne donte am na loo xam ne jàpp nañ ne jarul wala sax wax nañ ba tudd wàllu guerre duñu ne am na waaye nit ñi wax nañ ko jëmale ko ci tribunal bu mag boobu ak ñasa sa nekk wala ñenn su ñasa muy loo xam ne lu doy waar la lu senegal mosul xam assemblée nationale wote ci bésum fanweeri fan ak benn weeru janvier bi ñu nekk taxawal commission buy def enquête ñu tuddee ko commission enquête parlementaire ngir wara a mun ni nga xam ne noonu la mbir mi doxee ca biir conseil constitutionnel ba ci wàllu candidature yi kan moo war a jàll ak kan moo war a jàll loolu nag ba mu amee conseil constitutionnel itam bi nga xam ne charte réew mi daf ko jox ay pouvoir ci wàllam moom it bind na bataaxalam ñoom juróom-ñaari juge yi nga xam ne ñoo ko séq wane ne conseil bi dàq na kàddu yooyu ñu yëkkati ak tuuma boobu ñu yëkkati jëmale ko ci ñenn si ñoom te it wane nañ ne lépp lu ñu liggéey ñoom si yoon lañ ko teg waaye bëgg nañu tuuma yooyu ñu leeral ko leeral boo xam ne it dafay respecter charte réew mi respecter it lii ñu tuddee séparation des pouvoirs mooy pouvoir bu si ne yoon moo la jox say prérogative say dogal ak fi nga xam ne fa nga war a yem waaye keneen tam mën a ñëw dugg ci loolu loolu nag bi mu amee te lépp jëm ci élection bi mu am leneen lu ci yokk depuis barki démb lu ñëw gën a euh, teeyal xel yi muy ñu gis ne candidat kat si ñu jàppoon ne ñoom ñoo war a dem ci jongante bi amaan am na ci koo xam ne ndekete yow moom am na beneen nationalité kon li constitution bi wax ne képp kuy wut réew mi

bi loolu nationale toujours nous na ma nga charte waxee règlement intérieur xamal groupe groupe parlementaire déposé loi bu proposition de loi la buy bëgg soppi article bi nga mu date élection ñoom assemblée nak buñu amé sañ tam faaw ñu jël président la fay bi consultation président assemblée nationale ñëw na premier ministre waxtaan présidente haut conseil bu collectivité territoriale waxtaan ci président conseil économique social et environnemental waxtaan ci ak président bu conseil constitutionnel ndax booy xool ginnaaw cour suprême muy tribunal ñooñu ñooy constitution ñooñu ñooy institution yi nekk ci biir réew mi ginnaaw ba ma waxtaanee ak ñoom nag wax naa assemblée ne euh, dégg naa li ngeen wax jot naa seen bataaxal kon seen liggéey mën ngeen ko continuer ginnaaw nag ñoom assemblée ñu ngi toog jamono ji di saytu ak dugg ci procédure jël naa décret bi nga xam ne moom mooy ajandi décret bi woote woon ne élection bi le vingt cinq la doon décret boobu jël nañ ko tey mu nekk décret bu ñu signé tey ji ci bës bi ngir ajandi ba xam assemblée nationale lan moo fay génnee ginaaw bu ñu paree seen liggéey li ma si bëgg a yokk nag mooy mbir mi nekkuloon lu ñu sóoraale newuloon it li ñuy xaar waaye may feddali kàddu ya ma yëkkati woon fii ci seen kanam ci ñetti fan ci weeru juillet at mi ñu génn daaw di xamal leen ne élection bii di ñëw fas wu ma nekk ci candidat loolu dama koy biralaat tey ji tey ci gën a taxaw bu loolu weesoo it wala di xamal ne dinaa ubbi jaar bu bees boo xam bu lu dul ngir réew mi ginnaaw jafe-jafe yi ñu dund nous ferons ñu fexe ba dajale réew mi ci jëm ci élection bu leer lay doon élection bu bo xamné tam dinañ ko ubbi politique bi tam wut ngir séparer candidat dina yi itam réew mi ñu apaiser ko maanaam indiwaat fi jàmm jàmm ju gën a yaatu ba lépp fi jafe-jafe lu jëm ci wàllu jàmm ak ci wàllu ay jafe-jafe ñu dindi ko te lu dialogue bi moo koy def kon loolu laa bëggoon itam xamal leen ne dinaa ko tali fan yi di ñëw ndax lépp lu ma yitte rek mooy Sénégal nekk si jàmm nekk si sutura ngir suñu réew mën a jëm kanam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam